Ousmane Sonko mook imam Ndaw démb la ñu doon janook àttekat bi parquet bi jamono ji nag la mu bëgg moo ñu tëj leen juróom benn weeru kaso waaye défense bi la muy sàkku rek moo ñu daat leen di bàyyi ñu ñibbi seeni kër ñetti fan ci weeru juin ca la ñuy xam seenu ëllëg ñeel bi le procès l'observateur addu jëmale ci tribunal des flagrants délits ne Bah Diakhaté kay nag ma ngay dellu di dëggal ay kàddoom jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko ma ngay xamle moom Bah Diakhaté ne Ousmane Sonko dafa jaay ab këram lu toll ci cent millions activiste boobeek imam bi nag parquet bi sàkku nañu tëj leen juróom benn weeru kaso source a dellu siwaat ca la xew démb ca tribunal bu Dakar ne délibéré bi daañu ko fësal ñetti fan ci weeru juin bi ñu jëm yéenekaay bi ne Bah Diakhaté amal na fa ab show mook Imam Ndaw Bah Diakhaté moom mee nga xam ne rek démb xamle na ci biir yëglekaay bi ne carrière politique bu Ousmane Sonko mënee suñ caa bañ a tudd lu jëm ci promotion borom ñaari tur yi mu dellu xamle ni ba muy amal déclaration patrimoine moom Ousmane Sonko ci ab livre la ko dëxëñ ci ñaar fukkeelu page ba ca la ca la daal di jaay ab immeuble bu toll ci cent millions te kàddu yooyee nag bu ñu ko méngalee rax na ay kàcc imaam ndaw daal di koy feelu ne man aw ma benn sañ-sañ ci wàllu yoon ak ni muy doxalee bu ngeen bëggee tëj leen ma fukki atu kaso léegi ko yëglekaay dellu suwaat ci procès boobee nga xam ne rek démb ñu ngi ko doon amal ca tribunal des flagrants délits doon toppee Bah Diakhaté ak imaam ndaw lu jëm ci offense jëmale ko ci ki nga xam ne rek moo di élimaanu jëwriñ bu Sénégal Ousmane Sonko yéenekaay bi ne ñoom ñaar ñi boo moytuwulee lu rëy ngi leen di xaar ndax procureur de la république nag leen juróom benn weeru kaso ginnaaw ay vidéo ak i audio yoo xam ne rek ñu ngi ko doon wasaare ci biir plateforme yi ginnaaw bi ñuy sàkku nag ñu daat leen di may ab bàyyib néggandiku nag loolee dañu leen koo lànkal daañu des ci kaso bi fileeg ñuy xam ci lan mooy tukkee ci boobee àtte ci l'info yëglekaay maître Aline Badara Fall ne li mu gis ci régime bu yees bi daal bokk na ci premier ministre boo xam ne rek moo gën a kaweb taxawaay kii di président de la république maître El Hadj Diouf nag ne li xew ci Sénégal kenn mënu koo wax Sénégal gii dañoo am président boo xam ne rek dafa topp ci ginnaaw premier ministre bu ko gën a sut ay mbagg maître Ousseynou Thiam ne régime bu Macky Sall amoon nañu seen imam ndaw tey jii régime bu Ousmane Sonko moom it am nab imam ndawam maître Oumar Diallo gis ne procès bi daal politique rek moo ci lalu ak règlement de compte waral ba maître Amadou Sall moom gis ne nag Bah Diakhaté ku ñu war a protéger la ci loi amnistie bi ñu fi amaloon ndax Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñoom ñaar ñëpp bénéficier nañu ci boobee loi amnistie Bah Diakhaté di ko tontu ci biir yëglekaay bi li ma def li nga xam ne ba tegal leen ko offensé wu ma benn doomu aadama addu jëmale ci leneen vox populi xëyee tey jii nag assise yi nga xam ne rek dañu koy amal jëmale ko ci wàllu justice ndaje moo xam ne rek démb amal nañ ko ci sikkaat waxtaane nañ fa juróom-ñeenti thème yoo xam ne rek dina bokk ci li ñu war a waxtaane ci ndajam tey jii bokk na ci statut magistrat yi conseil supérieur de la magistrature temps du procès pénal et le régime de la sanction pénale conditions de détention yi daañu ko waxtaanee niki tey jii régime de la privation de liberté code la procédure pénale sanction loolee bokk na ca la nga xam ne rek dana gën a fës ci waxtaanu tey yi le temps mooy yëglekaay ne projet bi kay jamono ji nag yegg si nañu ci fi ñu ko war a jëfee ginnaaw bi mu diggee ay waxtaan ak askan wi moom président de la république ndaje moomee daañu ko ubbi tey jii ca jam ñaajoo yi nga xam ne rek ñoo yeewoo fii ci biir réew mi yéenekaay bi ne ci diirub ñeenti fan nag daañu càmbar lépp loo xam ne rek mooy jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci wàllu yoon daal di ciy wut ay saafara enquête yëglekaay ne yeesal li ñu bëgg indi ci wàllu yoon nag dina bëri liñ fay waxtaanee acteurs yi nga xam xam ne rek ñoom ñooy yëngu ci wàllu société civile nag ña joxe seen xalaat ak la ñu bu ñu ko defee nag saafara mën na caa tukkee mu njaay Cissé bu ONG 3D nag di xamle ci biir yëglekaay bi li nga xam ne rek moo mën a doon différence Alioune di boo xam ne rek paaka la magistrature le quotidien yëglekaay addu jëmale tey jii nag ci lu jëm ci wàllu xam ne rek moom lañ ca daal di fësal bi di samp ne lan moo waral bën nëgë ni sii nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon sàkkuwul ci parquet bi ñu daal di koy càmbar yër leen boobee yëglekaay Sud Quotidien xëyee tey ji nag ci ab gëstu bu mu amal ci wàllu déclassement yi ñuy amal ci forêt classée yi nekk fii ci réew Sénégal yéenekaay bi nag li ko dalee Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall kenn ku ca nekk taxawaay bi nga amoon nag ci yooyee forêt ni ñu ko caxat-caxatee professeur Cheikh Abdou Wahab Ndiaye nekk ca UCAD ma ngay xam ne ni am na code de boo xam ne rek may nañu ngir ñu daal di exploiter forêt yi waaye dafay fekk mu nekk ci kaw intérêt général intérêt général moo waral mu daal di tabax ab stade foofee ca Mousdalifa 2 nekk ci jidda caaroy kaw maire ba di Mamadou Gueye lu yàggul dara la génnee deux cent millions daal di cay tabax ab stade bu méngoog jamono yàggul dara bi mu ko inauguré jébbal ko askan wa yeewoo ca jidda caaroy kaw waaye démb la ay defkatu ñaawtee fa daal di yegg si ca boobe stade sotti fa ay grava ay épave ay mbalit ay pièces woto jël ay huile daal di koy sotti ci miir ba caxat caxatee boobee stade bu ñu sukkandikoo ci maire bu jidda caaroy kaw ñooñee def lu ni mel na nag sabotage rek moo leen ca dugal waaye nag du ñu ko bàyyi mu sedd ndax fas yéene na ñoo amal kalaame ci kanamu yoon ngir topp ñooñee nga xam ne rek ñoo def jëf ju ni mel ak ñi leen ko sant tàggat yaram ca la àddu jëmale regroupement bi nga xam ne rek moo soxal gayndoy Sénégal jëm ci wàccaay wi nga xam ne rek moo ñeel jongante bi ñu war a amal ci seen digganteeg RD Congo ak Mauritanie réew mi quotidien fukki gaynde ak juróom-ñeent rek